la julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, bala maa commencé damay sant euh, son excellence le président Macky Sall parce que li gars yi di wax sama mbokki alpulaar yi nekk fii ku gis nen nga ni nen a ngi lii mosu fi am président bi mu ñëwee dafa créer ay programmes yu bari ANPEJ PAPEJ bokk ci xam ngeen PUDC am na Promoville am na bref y a beaucoup de projets mais bii moom daf ko jël jagale ko ndaw ñi ak jigéen ñi lii lépp nag dafay confirmer rek li nga xamante ni moom la bind tënk ko ci son programme Sénégal émergent bi nga xamante ni dafa am une vision ni pour Sénégal nii laa ko bëgg a doxalee ba telle année donc loolu Euh, ANPEJ PAPEJ bi daf ci nekk une confirmation daf ci nekk un programme bi nga xamante ni mooy pour jàppale ndaw ñi parce que ndaw ñi am nañ doole trop ci programme moom boobu ak jigéen ñi. maire jeune nga mais sa taxawaay toujours ci côté xale yi ak jigéen ñi da nga ko doon firnde donc ANPEJ daf la si fekk si yan fànn nga leen xaar justement. waaw xam nga euh, Tassette dëkk bu. bari suuf la bari na aussi ndox jeunes yi jeunes yi am am am jom lañu parce que ku ni taseet xam ni jeunesse bi changé na bu baax bu njëkk dañ daan dem euh, exode rural d'une manière général mais léegi bi ma ñëwee dama leen a invité ñoom ñëpp ñu leen écouter hmm, président Macky Sall defar na yoo xamante ni soxlaatul ñuy dem fenn mën nañoo toog suñ biir dëkk di liggéey loolu moo waral. bi ma waxtaan ak ñoom ñu mu nekk une jeunesse consciente man ni leen nag dama bëgg ñu ànd ci programme yi nga xam président def na ko pour jeunesse Sénégal ah yéen it ngeen gis seen bopp ñu mën a développer Tassette ñu nangul ma ko boo xoolee yaa deux semaines tase nañ fi li fa nekkoon matoon na téeméeri jeune ak ñaar fukk ñu waxtaan pour préparer jour bi moo pare nag laa contacter DG ANPEJ xamal ko ni ko jeunesse Tassette pare nañu vraiment pour liggéey suñu gisee ay financement moom it mu kontaan parce que président da ko fa teg pour mu jàppale jeunesse Sénégal ci ay créer emploi loolu moo waral ndaje tey bi boo xoolee tey li fi nekk mat na presque ñaar téeméer yoo xamante ne dañu ñëw jóge ci cinquante et un villages yi nag informé wu leen woon sax mais jeunes yi rek laa waxoon nu ñëw mais dinaa ci lancé waale xamal ni femmes yi ñoom amul limite donc ñoom mën nañu ñëw am ci financement yi mais Babacar lii rek day firndeel Euh, jeunesse Tassette taxaw nañu takku parce que xam naa ni jeunesse bu am fulla lañ am fayda lañ lu nekk dañ ko daan def en dehors de Tassette pour indi jàppale seeni mbokk léegi nag lii xéewal la fi président def muy euh, gunge xale yi ah ñun taxaw nañu experts yi ñu ngi nii euh, DG Lamine Dieng jot naa ko dafa am fu mu représenté rek le ministre mais mu ngi ci yoon di ñëw incha allah war ñu eggal dina agsi waaye li mu leen mën a xamal daal ñun pare nañu man je suis un maire jeune euh, la jeunesse de Tassette et la dañu bëgg liggéey soxali suñ dëkk ak jàppale son excellence le président Macky Sall di ko remercier ci du fond du cœur parce que ñun ñu ngi doog a gis ñu ngi doog a sentir un président la république ci président Macky Sall. donc suñu waxtaanee waxtaan yooyu pare dinañ leen expliquer aussi ñoom nan la ñuy def ba accéder financement. comme ni ma leen ko waxee njëlbeen bi PAPEJ c' est le projet d' appui à la promotion de l' emploi des et des femmes mooy ne projet boo xam ne état Sénégal moo ko mettre en place pour permettre jeunes yi ak ndaw ñu accéder à un financement pour mettre en place leur activité tey soo ko xoolee rek PAPEJ jeunes yi am idée de projet rek su ñu jegee PAPEJ tey idée de projet boobu PAPEJ daf koy formaliser mettre euh, élaborer leen plan d'affaires jàppale leen ba seen plan d'affaires boobu ñu financer ko ñu mettre ko en œuvre. si yan ci activité yu yëngu mooy ne agriculture su ñu waxee Sénégal agriculture dañu wax ne agriculture mooy mbéy mooy sàmm mooy napp ensuite artisanat artisanat am na menuiserie am na BTP am na tailleur yi. am na ñuy liggéey ci bâtiment yi yooyu yëpp mooy activité yoo xam ne activité cible la te mën nañoo jàppale jeunes yi ba ñu am seen financement ñu suivre leen ba ñu seen financement boobu jur la leen ëllëg dara. waa tey soo ñu xoolee commune u bi fu ñu fi nekkee xamal ne agriculture moo dominé mooy ne ñiy def maraîchage ñiy def. Euh, élevage ñiy def aviculture ñooñu ñoo fi gën a dominé mais nañ noté ne am na ñoo xam ne aussi ils sont dans le secteur du transport mais am na aussi ñi nga xam ne ils sont dans la menuiserie ñooñu ñëpp incha allah dinañ gën a waxtaan ak ñoom gën a formaliser projet pour ñu accéder a un financement. non financement bi jot financement bi dina yomb parce que état bi saytu na système bi léegi. convention yi ñu signé ak banque yi convention yu leer la de telle sorte que projet bu excès ci banque bi dafa am nombre de yu mu war a teg pour ko ñu mën koo financer ça veut dire que dans les jours à venir projet yooyu suñ ko déposé procédure bi dina est devenu maintenant fluide dinañ mën a jot seen financement nu ma gën a gaawee. merci. bon maa ngi tudd Seynabou Diaw dëkk Tassette Olof. waaw euh, tey jii euh, Mapes ak ANPEJ ñëw nañ fii ci seen waxtaan bi bureau financement la ñuy wax ak jigéen ñi. mel euh, na léegi bi nga jëlee sa kàddu présenté nga ñu un peu solo jotaay yu mel nii tey yéen jigéenu Tassette par exemple lan ngeen xaar bu ngeen amee financement si yéen fànn ngeen mën a bi euh, dafa fekk loo xam ne dañ ko peut-être dañ ko yàkkamti woon ko parce que pare nañ ba pare comme ni ñu koy waxee les idées les idées sont là financement bi peut-être moo desoon parce que fii jeune jeunesse Tassette bi surtout ci jeunesse féminine bi ñii ñii jàng nañ ba pare yor seen formation yor seen ay diplôme di xaar ku leen financement amuñu liggéey ñii seen formation ci centre bi ñii tamit yor nañ ay leneen ak ñi bëgg a def commerce lépp euh, ñoo ngi fi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne activité yoo xam ne jigéen ñi wala góor yi mën nañ mën nañ ci gis seen bopp peut-être am nañ idée bi mais amuñu woon peut-être yi léegi suñu mel ñëw liggéeyal ñu ko indi ñu financement bi euh, bu ñëwee incha allah war nañ war nañ ci mën a gis suñu bopp mën ci liggéey bu baax pour développer suñu dëkk. ndax jotoon ngeen am ay financement peut-être les femmes mais pas jeunesse bi peut-être les femmes parce suñu yaay peut-être doon nañ bénéficier wu ci ci kii mais jeunesse bi moom c'est première li ñu ngi koy doog am ñu ngi koy doog am ñun jeunesse jeunesse taset ñu ngi koy doog am vraiment. Ah, ah peut-être c'est notre mère suñu mère moom moom moo ñu ko permettre. que ni suñu yaay yi ñoo ñu ëpp ñoo chance mais peut-être ci maire la loolu maire moo ko bëgg moom moo bëgg a liggéey jeunesse am parce que tamit euh, jeunesse bi gis na ni ñëw na fi moom déjà il est jeune comme il ni mu koy waxee chaque jour il va travailler avec la jeunesse vraiment jeunesse bi soxla nañu ku leen jàppale gis na loolu soxla na ku leen financé moo tax mu dem liggéeyal ñu lii indil ñu ko bëgg ñu góorgóorlu liggéey bi. wax sa kàddu financement jigéen yi surtout sama sama sama raq yeeg sama mag yi ma wax leen ko que ni comme ni nga ko waxee ñëpp mënuñu am mais ñëpp mën nañ am tamit ci kaw que ni ñoom ñi am bu ñu bu ñu jëlee après ñu rembourser pour ñeneen ñi mën a fay kon dañuy góor góoru daal pour tamit bañu a suñu maire parce que tamit moom jeunesse am moo ko ñor ñun tamit nañu wane ni moom tamit mën nañu lim fi ñu féetee bu ñu ko décevoir bu ñu liggéeyee bu ñu indee financement bi ñun jeunesse bi ñu liggéey mën a rembourser pour ñeneen ak ñeneen mën a mën mën tamit ñoom tamit gis seen bopp. mais kon gëm ngeen ne pour soqale gox bi moom bu jaaree ci ndaw yi dina gaaw. bien sûr bien sûr parce que ñun fi euh, jeunesse Tassette ñii ñii jàng nañu ñii euh, am nañ ay idée ñii il suffit juste ñu pousse ñu parce que xam nañ li ñu bëgg xam nañ lañ fi ñuy teg suñu tànk. Euh, bien vrai que le maire est avec nous et avec la jeunesse te wane na ko daf koy daf koy daf koy wane daf koy wane chaque jour mu ngi ànd ak jeunesse bi def lii di créer ay emploi ci jeune di créer dimbali nit ñi yi nga xam te ni peut-être euh, amuñu possibilité dugg amagul emploi mu indil leen financement yi ñu mën ci bénéficier tam gis ci seen bopp. Voilà un